jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ koy defee saa su ne ñu ngi waat fii ci benn barak ñun nag wasaare làmb moom saa yu jógee rek dem seeti champion moo xam bu ndaw moo xam bu mag waaye wasaare xàmmewul champion bu mag ak bu ndaw ki ñu seet si ci làmb xam ngeen ni kenn du ko présenté champion la ci làmb def na ay preuve ci làmb te macha allah bu bëree mu neex su bàkkoo mu neex. kooku na balaa ma koy présenté dama koy bàyyi mu nuyoo armée missile la. fu mu la fekk boobu la <laughs> Baye Djili borom Baxdaad maa ngi lay nuyu di la ziare di nuyu euh, waa wasaare làmb ñëpp waaw seeni auditeurs ak seeni auditrices waa di leen ziare di ziare waa yëmbal Malika benn baraak di nuyu armée armée yeeg arméen yi waaw waa buun xam nga di nuyu daal fépp fu fan si armée nekk rek maa ngi lay nuyu di la ziare. oui. Armé gëj a gis ci làmb ji lu tax ñu gëj laa gis. waaw làqatu rek. waaw daaw daaw daaw daaw daaw ba ren ren nag làmb jaa ngi soogu bi daanaka laay wax waaw feeñaguma ren waaw mais maa ngi samay liggéey samay entraînement waaw di xaar gars yi rek. <laughs> daaw bëri nga yow ak caatu uh, booy bambara nga ñàkk ci combat wala du caat nga mujjee bëreel arène nationale. waaw caat laa mujjee bëreel yàlla dogal mu am ndam sama kaw may sant yàlla bu baax waa di waajaat nag ànd ànd ak samay mbokk waaw samay mbokk kenn seetaanu samay grand ñoom du Dieng sama grand Talla Diop waaw Sidi Sow xam nga gars yi vraiment ay ñoom Ifra waaw zongale gars yi tout billaahi ñu may jàppale bu baax a baax moo war a def retour bu am solo nag. oui. sa combat yaa caat da coo ñàkk mais dañ cee bëgg a taxaw seetlu waxtaan ci combat boobu bi ngay jël caat ak ni nga bëri combat bi ak ni nga def ba ñàkk ko mën nga ma ko expliquer. waa combat bi day jël nañ ko combat bi jël bu xaw a metti ndax mën naa ni daanaka deux ans laa ko lan ñu koy wax euh, am na promoteur bu ko waxoon jox ko avancement man joxuma dem dem dem ba saison bi tëj laay wax sax saison bi dafa tëj dégguma dara si laa defee déclaration de man amu combat ndax amu avancé kenn si lañ changé après liñ Nicolas fekk joxoon na ma avance yu dumbul mm, kooku tamit fekk ma xaaroon ko benn un an waaw si laa ñëw xam nga ay tolof tolof yu bëri daal moo ci daje waaw yàlla dogal tamit ma bëre ko mu doon combat tolof tolof ma xam ne daal sant yàlla la rek waaw combat bi li ci daje moo bëri daa deux ans laa ci toog. ku ma jox mu def ne dem nii naa ba mujj ma bëree caat. kon kon combat bi bi dumbul bëriwul woon ba dem États-Unis moom nga mujjee bëreeg caat. waaw moom laa mujjee bëreeg caat mais maa caat am na beneen promoteur bu ko taxaw bu ko bëggoon a taxawal laay wax mais joxoon na caat avance ba mu nekk ci làmb ji ñun joxuñu avance ba saison bi tëj si laa bàyyee nen si laa ñëwee ci média yi yëpp ne leen man oma combat vraiment promoteur la waaw ah, prince la prince suñ frère la mais moo ko bëggoon mais xam naa ne yàlla dogalu ko waa après suñ tonton li Nicolas ma koy ñaanal au yàlla na ko yàlla génnee ci lim nekk waaw di wax sénégalais yëpp nañ ko defal ñaan ndax vraiment sagu làmb la waa te tamit euh, ku baax la ku am ambition ci li muy def la waaw torof torof nag du ñàkk ci jaam waaw amul amul ci ku munta dal waaye ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk yàlla na ko yàlla génne ci darajay rasulullah waaw ci bark barke Serigne Fallou mi yaakaar waa suñ père la dëgg la miinante waaye mbaax lañ xam ci moom yàlla na ko yàlla génne père Nico Luc Nicolaï. sa combat yaa caat armée nga ñëw bëre bëre ba ci biir bëre bi ñu gis ne armée dafa naagu jaay combat daanu gis nga loolu wala yow gisoo loolu. waa daanaka noonu laa daan daanee sax laay wax. waaw dëgg la nag jour boo warul am ndam doo am ndam waaw ah, man ku ma xam xam ni man su ma xasee déclenché ba ba commencé may action du ma teggi damay tegli bu bañee ma teglee dëgg la nag ci biir bëre la ma daanee ci sama manin la ma daanee li nga xam ne mun naa ne daan naa ci cinq mbër ci sama palmarès wala six waaw mu ñëw mu ñëw kon bu ma ci daanee rek waaw damay sant yàlla xam ni waaw làmb noonu la. waaw lamb moom li olof di wax du biir day xëy wasin waaw vraiment di ko ñaanal tamit waaw victoire boobu yàlla na doon lu ko jik manit defet bi yàlla na doon lu nga xam defet bu ma jig lay doon waaw combat bi daal vraiment metti woon na nag metti woon na ndax combat bi di ko pare ñàkk sa waajur bu jigéen xam nga xam benn waajur laa dese woon mu sës ci man mooy sama lépp waaw man li li ma ci daje li ci daje dafa bëri dafa bëri trop mais sant yàlla bu baax. yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana te yéexuñu dafa mel ni bokk na ci kenn koo xamante ni jege woon na la trop trop say image yu bëri ak say photo statut dañ ko daan gis gis ni nga meloon ak moom. waaye kooku sama lépp yàlla xam na ni dama doon man man lu ma mës di dund ci àdduna mooy sama première sëriñ waaw bi ma ko ñàkkee dama ne ñàkk naa lu rëy man fu ma lu ma daan dem bu ma ñaanalee rek dama ci am yaqin bu wér waaw te tamit loolu daal ànd boo gis am na fu mu yem waaw noonu la ko yàlla bëggee dama koy ñaanal yal na xippee ji ci keppaar Seydina Muhammad moom mboolem jullit ak bopp way dawlu rek yàlla na leen yàlla yërëm te tàbbal leen àjjana oui. ñu ñëwaat ci làmb ñaata combat nga bëre ak ñaata défaite nga ci am ak ñaata victoire nga am. waaw man de bëri naa waaw sama combat ak Thiat mooy sama douzième combat am si dix victoires deux de la am. waaw sama premier grand combat laa daan moom combat préliminaire daanu ma si sama premier grand combat yàlla dogal ma ñàkk ak sama combat tànk. waaw kay mooy sa premier grand combat. waaw boobu sama première défaite waaw yàlla dogal nag mooy bëriwaat di pourvoir di pourvoir ba ñëwaat si caat ñàkk damay ñaan yàlla mu yem foofu rek. waaw gis nga xam nga ni bokk nga ci mbër yi nga xamante ni bi grand combat di jar grand combat nga ko bëre parce que boo xoolee combat préliminaire yi nga bëre ba toll ci grand combat kon def nga def nga parcours bu garaw waa gis nga noonu la fa demee wax dëgg yàlla bi ma koy bëre dafa jot. waaw bëri naa sept combat xaw ma huit soo ko bëree grand combat waaw bëre spécial yàlla di mu suturaal nag te yàlla moo doon suturaal ba léegi mu ngi fi waaw dañuy damay wax gaay rek. waaw nañ jàppaat te xam ne yoonu ndaw du gaaw sam papa am na wax bu ma wax wax bu am solo nee na kuy dem toog tuuti xool fi nga jëm ci la bokk waaw du la tere yegg fa nga jëm boo yeggee dangay ngay xaar rek wala nga tourné waaw yoon nag du ñàkk ay tolof tolof mais bu ci dëkk tamit waaw damay sant yàlla bu baax di ñaanal sam papa bu ma fi desee mu sëriñ Cheikh Kounta Ndiaye di sama sëriñ yàlla na ko yàlla wéral guddal fanam bu baax waaw. ak moromi papa yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñu guddal fan lool ba fekkee njëriñu njaboot gi Armé ñu jógee ci lool loolu promoteurs yi ñu ngi lay woo. waaw vraiment nag man déggagum euh, de contacter gum waaw contacter gum ma du ma ne kii woo na ma wala kii maa ngi dégg rek nag ñuy wax mais carrément comme ku nekk ci combat kii non déggaguma ko mais maa xaar man ndaw la li sam papa Birane di wax rek njaay mu njaay mu nga xam ni jarut waaw jarul yàkkamti na fompal rek bàyyi fa yàgg-yàgg day jar waaw te ñu ngi ci loolu. mbër daf maa yóbbante ci yow. su ma la waxee yóbbanteem di nga ma tontu. incha allahu rabbi. Tafa Mbër. nee na yéen ñaar seen diggante la bëgg. Tafa Mbër Tafa Mbër loolu yow yaa koy sañoo yow jiir boo yoroon sa xaalis sax yow xam nga ni doo ko def ci loolu yow da ngay da ngay xool ñi nga xam ni ñoo tolloo jamono Tapha Mbeur ak sama booy yi ay combat lañ moog joo billaahi mën naa waat ci yàlla na bu daanee joo waxuma la man ma bëreeg moom de ku ko neex na bëreeg benn baraag te sama rakk la te ñoo tolloo liñ def Tapha Mbeur du ma moromam sama doomu ndey ko mujjee daan bërki dem Alioune Sèye Junior xam combat bi yëpp ñoo ko préparé. su suñu rakk la mën a jël. te suñu rakk nee na moom daa dugal recours de xaw ma fu mu mujj waaye nee na moo daan Alioune Seye si. fu mu daan waaye bu seetaan nga làmb du am dara moom yax yee nooy bu dóoree rek damm na bàyyi dóor comme que yax yee mbër sa yëg naa ko muy teel teel rek mais waaw na liggéey bu baax làmb ji moom. du ma bëre kii amu fi mais bu defee lu ñu war a dajee dinañ tase mais xam naa ne du ren du déwén loolu man leer na ma leer yàlla ne du ren du déwén amul promoteur buy taxaw sax naan ma yaag Tapha Mbeur loolu moom man leer na ma waaw na liggéey baax moog asantaal combat la moog Balla mii ma toogal combat la lu leer laa lay wax boo xoolee kii xam ne ak moog Tapha Mbeur combat daa os de te daa mën bis de. xoolal kii moo taxawal ba xam moog moom du combat. Tapha Mbeur ëpp ko taxul nga daan ko. waaye yow dégg nga ñii ay mbërëntaal ñi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo judd ci bëre yaru ci bëre màgg ci bëre waaw. kon kon kon am na ñu war a bëreel daal loolu du du du dégg naa ko nag muy wax xam nga rek moom moom moom day ut bës ci kaw nit. du noonu da ngay liggéey làmb ji da ngay liggéey bëree lu dul sept combats xaw ma six combats waaw bëgg waaw. na liggéey rek. daal xeeb nga Tapha Mbeur léegi gannaaw xeeb nga Tapha Mbeur nee nga doo bëreeg moom. wala du boog du moment bi du ren du déwén fan nga yow fan nga teg sa bët koo bëgg a bëreel. da bëgg ma wax la ki ma bëgg bëreel. Euh, maag ama neex combat la pourquoi mënuma bëre moom su ma ko mënul am maag booy bool man ñoo ñooy sama naataangoo. ñi nga laaj dañoo dis kenn. defu ñu fi lu ma fi deful te kenn mënu si kenn dàqu ma see leer laa wax te amul kenn koo xam ne dinañ tëgg suñu làmb ñu ñëw man maale ëpp mbooloo fuuf su ma jógee Malika yëmbal benn bara Kër Masaar Boune caaro ñëpp dañu jóg. dégg naa cartouche bi daa jeex de mété bi amatul dara. laa la illallah doo dégg album missile la fu la fekk bëm la tey laa dàq bëm te fu mu gaynde mer la fanaanoo waaw mer laa fanaanoo de. ama na nekk fi di bëreeg benn xale parce que booy bawol lañ ko fi jox bërki démb mu jàpp ko stade Amadou bari dóor ko mu wàcc nee moom xale yi moom dafa amul benn xale bu ko ñemee taxaw sax dëkk ko ci làmb. ama neex tàppet la ku ko xool xam ni bëre tàppet la moom day nuuru rek daw ñëw. day luur rek daw ñëw bu ñëwee day dajeeg dara bu dee dëgg la moom ban xale bu tàng la fi daan booy baal booy baal laa tax ñuy wax mais baal sama mbokk bawal bawal la ragal la mbuqat la moom moo ma yem rek. booy la du gis ku. jox la booy bawal. moo ko teree neex. déggoo lu ma la booy day xeex di jaabante ardoota du joxe combat. yàlla xam na ne fi mu toll nii soxla ma combat bu oyof xam nga lu tax. dama bëgg woon sama supporter naka la ak nan la. booy ah, moom daal fi mu toll nii Bas nee na am neex la diw boor bi wala booy bawal boobu daal daa mel ni ñooñu la laaj booy bawal bu olympique de Ngor. parce que ñaari booy bawal moo am am na bu nekk dóor dóoraan am na bu nekk olympique waaye xam naa ne nekk dóor dóoraan moom du xalaat xam naa ne olympique de Ngor moom xam na xam na boppam. non ñooñu ay naataangoo lañ te dëgg neexul. Mm-hmm. defuñu fi lu ma fi deful ay naataangoo lañ. waaw amul kenn koy lim palmarès am lim sama palmarès ma sëgg non làmb nag daan ak daanoo ànd te li may wax rek doo daan nit ki yéen ko yóbbu seen kër da koy bàyyi mu ñibbi ci ay mbokkam mais ma la amul kenn koo xam ni dinaa tudd sax di xalaat ne war naa mën a war naa la mën a daan wala déedéet dama lay daan facilement xoolal li ma wax nekkuma ay bëri ay jàpp di buuxante jëmale suba de awa neex day yor moom la. yooru rek bu yooruwul daw jàpp say tànk paquet amul leneen lu leer laa la wax. non waaye lu ma koy doyee Tapha Gueye na jël mbaay. <laughs> la doo bëgg a revanche. waaye kooku na jël saraxam la loolu muur wóoroon a génn waaye kooku fu may bëreeteeg moom. Ah, fu moom ci àddina. muur mu waroon a génn génn. di bokk ci livre bu Saba Gueye dee de. waaw jur boobu moom rugaas bi mu la indil. arbitre le prix bu coppee sa tànk di nga xam ne ay jile jile koy mujjee. loo du ñàkk ci àdduna. àdduna loolu mënu see ñàkk. ñaata mbër nga fi gis. ñu daan ñoo xam ni da daan na ma boobu ba léegi kan la daan kan. waaye looloo ko gën a relancé waat ci làmb parce que daan na la ba jug jibbi te yow xamoo sax lu la daan. yàlla bind na ko démb tey soo ko ñëw. waaw de combat boobu comme mën naa waat ci àddina ah combat yi ma mës a préparé yëpp booboo ci gën a baax préparation boobu laa gën a sonn combat boobu dama daan yëkkati ba yëkkati eh, di presse cinq cent kilos gars yi xam nañu ma ma doon sëf ba mu jeex ma jël taala mi teg ci kaw liggéey liggéey métti yoo xam ni non kii mbër mu yàqu la daa am combat moog zongale waaw fi mu toll lool mooy loolu bës bi benn baraak fii moog zongale ñoo am combat Talla Diop ak zongale mais mooy loolu moom sama noon la nag. mais keroog bi nga simmee ko stade Iba gis nañ état de forme bi nga indi pour ñun Tapha Gueye 2 du am dara waaye gis nga làmb ku naan la maa la ko gën a xam ne ko ba ba dimanche. arbitre ne prix mun a coppet sa tànk dafa ak yow deux temps bàyyi la nga wàcc. waaw combat boobu nag li ma gën a rey xam nga Tapha. ba ko yëkkati sax daf maa xam nga li ma gën a rey. combat bi man xaw ma Tapha Gueye cent pour cent seetaanumaay làmbam. boobu man maa ngi ñëw di teel teel di dem. aussi nit ñaa ñëpp ak naam sa tànk la jël sa tànk te man leer na ma ne ay punkal dañu jël sama tànk bi mënuñu ma see daan. mais bis boo war a daanu yow mi ko damaa tiit. bu may xalaat kii fekk sañaxal na ma. waaw wërsëgam la loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara. nit mënul waxaa ba jour boobu duma daan waaw. ba relation nga am ak mbër yi dëkk fii ci gox bi mbëru mbëri mbëri fii rek. yëmbal Malika ak li ko wër. yàlla xam na ne au ma fi sens interdit ñëpp jàmm laa seq ak ñoom ñépp ñépp waaw jàmm lañ seq bëggante di demalante di jëflante waaw amuñu nëbboo ci lenn mbër yi fi nekk yëpp. ñi ma tollal génération ak ñi ma tollalul génération yàlla dogal na ni ñun fii amuñu xiiroo wala ŋaayo wala non ñun ñëpp benn lañ boo ñu fekkee te ci kanam tuuti di nga si xam dara gaa yaa ngi ñëw waaw. mbëri mbëri yi nekk fii ci gox bi ñan nga ci dul bëre. du ma fi bëre kenn su desee ci ñoom ñii ci gox bi. ma tekk sama ngemb ñaanuma yàlla bëre ku dëkk zone bi. Malika bëggoo neex yaa ma gën su ma naree bëree moom bàyyi làmb kooku sama doomu nday la. billaahi mu bëgg ma lool di sonn ci mën lool. man it ma bëgg ko lool. di ko ñaanal yàlla ci darajay njool màkk yàlla na ko yàlla may ndam ci digganteem ak fils de Balla combat bi mu jëm muy le 23 ñaata mbaaya le 23 le 23 mars bi général yàlla na ko yàlla may ndam. ci barke Seydina Mohamed sama doomu nday la sama lonkoo la sama xarit la. ma jox la Alioune Seye Junior. <laughs> kooku la sama simoo la sama simoo la. <laughs> jërë boo bëggee dégg-dégg. li li ko dalee yëmbal Malika. Ah. su ma fi naree bëre. Mm. bàyyi bëre. waaw. li ma fi jotam mbapat sax as dama ko rëccu. Mm. waaw mbapat sax noonu la parce que mbapat moom gox sa gox la kii day représenté gox mais bu ngeen demee ba kii nag quartier gi yëpp ngeen di boole di rajaloo ñëpp ànd ak gox bi yëpp di di défendre benn couleur couleur gox. waa ci moment yooyu lañ toll ñun. fi mu toll nii ñu ngi ci ay liggéeyu metti waaw di ñaan yàlla yàlla bu seytaane am wàll suñu diggante boobu waaw. maa ngi lay bëggee waaw di la ziyaare bu baax waaw di la ñaan nga may ma ma sant gaay yi nga xam ne ñu ngi may jàppale di ma di waaw ndax mbëru bu toogee bëriwul day metti nun ma benn sama noon bi Talla Diop sama noon la waaye noonu la mu bëggee waaw vraiment noonu privé la waaw noonu privé la <laughs> vraiment day sonn ci man lool lool lool lool ba ma xam ko waaw ay sama grand Mamadou Diène ñoom Siri saw waaw Alaaji Omar xam nga sama gaay moom du ma lim kenn armée armée yi waaw ñoom ñoom jarul may lim ñoom xam nañ xam naa xam nañ fi affaire tool ñoom Serigne Faye Baye Mor prési xam nga mënul ñàkk waaw gaay billaahi xoolal amul kuy xaar ma la sama soxla lii la yàlla xam na loolu Moussa Kër Mbaye Fall maa ngi ko déggee bu baax a baax waaw sama doom day Ifra waaw Zongale ñëw na xam waaw gaay billaahi jili fi mu toll nii man nii nii nii sax damay xaw a tipsé mais xool ni ma bëriwul nii lañ gën a ci man sama ganaa Gane Kebe sama per Ali Ndiaye Martalia yàlla xam na ni kenn du moom kenn du moom ci armée waaw bëgg ma di ma jàppale di ma conseil di ma wax lu baax waaw di yëkkati alal ju bëri di ma jox waaw namu ma dara billaahi lu ma namm mu defal ma loolu per dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla guddal fanam wéral ay cëram. ci darajay njool màkka waaw yàlla yàlla bu mu daje lu mu ragal ci àdduna waaw te dina gudd fan lool ndax kuy def lu baax lu baax rek ngay am waaw di nuyu sama père Saake Ndiaye waaw ñoom Diop daaru xam nga waaw sama gars yi yëpp ñi may jàppale per Laman kulluhum waaw ñi jàppale armée ku mel ni grand Abdourahmane pharmacie waaw ñooñu xaaruñu combat ci man waaw suñ doom ndey zoo zoo borom kër Mbay borom mari sax léegi waaw kooku ñu ngi koy sant bu baax waaw kuy jàppale mbëri la ñu ngi koy sant bu baax di sant sama doom nday mbaaya ak mafia bi mafia taala jóob bi bàyyiwuma kenn si daa laay commencé waaw daa ba ci booy ñoom taala jóob xam nga gars yi ñëpp maa leen di sant waaw di ñaan yàlla seen site bi nag yàlla na ko yàlla def télé ndax maa ngi koy suivre mango ngi bu baax gis naa yi ngeen di def gis naa yéen a ngi bu baax mais xoolal yàlla na ngeen jël paie. déwén ci barke Seydina Mohamed. jaajëf <laughs> jërëjëf Armé sa dafa rafet rek jërëjëf ñaan yi gis nañ ko képp kuy safa wasaare làmb gis nañ ñaan yi gis nañ yéene yi seen mbégte rek mooy suñu bànneex mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ci kanam incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.